baax si boppam jéega mag mag su baaxee dañ koy waxal baax baaxam. leen ma may xool yu baax. parce <laughs> que lu baax euh, xam nga moom a nekk si moom ah démb ba tey maa ngi ko koy wax su su Sénégal moom la ñuy dem wuti dégg ko micro waaw moom rek moo a jaaxal moom loolu loolu man moom rek moo am Sénégal. Ndour a mën a <laughs> te sëñ bi maak yow yàgg nañu de ah yow ñu ànd ba Gàmbi. noo ngi tudd waaw dëgg la ak beneen yaay sunu yaay yaay sunu baay ñu am mbégte lool nag. noo def ñëpp a ngi waaj waaw waaw am na lu ma dégg Ndakaaru. am na fu ko déggee ñu ngi waaj. waaw waaw na ñëpp waaj waaye ñëpp a ngi waaj. na ñëpp waaj nañ ko ñaanal. ñaanal ko ndax hal ala min ne du ngeen ma leen commerce bu gaaw ñu ne ko yàlla lan la mbay déglu ma. ñu ne ko yàlla lan la mu ni too mi ne da ngeen di gëm yàlla watu jaayi doo ngeen di jaat fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi am waalikum seen alal loolu yàlla moo ko boo amee alal jihaat ci yoonu yàlla hal adlukum ala tijaaratin tunjiikum min asaabin alim a ah, sun borom leen tuumi noonu bilaay da ngeen di gëm yàlla watu jaayi doo ngeen di jihaat fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi am waalikum seen alal wa anfusukum sen bakkan salikum xayru lakum Aziz nak mi ngi ci lolu lum mu am def am def na ci jami yalla yi kon yalla yàgg lolu nak sun borom mako wax sun borom dañuy da ngeen du ngeen ñew ma tegtal leen benn commerce commerce boo xam da ngeen ci jarriñu kon nak lolu lolu la Aziz di doxal lu ngam bok bokk na ko jaami yàlla yi nan ko ñaanal yalla nako yag man def ci barke Xaadimu Rasuul ñoo leen ci bayisi la bayisi la. lu ñu si roy. ma sëgg fii wér wàcc ñu gis samay di ko bàkkeel xoolal lii di gubar gubaree ci doomam taxu koo sàcc dem ñu si ndu moom garaaw loolu Aziz laa ko bay Aziz foofu laa yem eh boo yéen ma fi ak seen caméra mais père loolu sénégalais yi xam nga ni mooy xuloo da ngay lii du waxu caméra li beneen affaire la bàyyi leen seen yi ngeen di def. ah. Seyda. da ngay fexe ba defar sa jikko. da ngay fexe ba defar sa jikko. defar sa yéene. defar sa yéene. xam fi ngay teg sa tànk. xam fi ngay teg sa tànk. Abdou Aziz mii. ne Abdou Aziz mii. ku ma fekk fi moom. ku ma fekk ci Abdou Aziz. di nga xam li ma fi baax. ne di nga xam li ma fi baax. yéene juma am. ne yéene juma am. ci ci lislaam. am ko ci nit ñi. am ko ci nit ñi. te mënuma ci dara. te mënuma ci dara. ci la Aziz di xëy. ne ci la Aziz di xëy. di ci gontu. Aziz ci lay gontu. kon sama yéene. ne kon sama yéene. laa bëgg sëñ Aziz. laa bëgg sëñ Aziz. nit de lum yéene te mënu ko. ne nit lum gisee ku ko yéene man ko def. bu gisee ku ko mën a yéene te def ko. da koo war a bëgg. da koo war a bëgg. gis naa lu ne. lu baax lu yaatoon nii waaye lu baax lu yaatoon nii Aziz di def. nee li ma ko gis bëriwul. nee man du ma neexale kenn sama jëmm. nee yàlla rek ka tax may wax. nee Aziz maa ngi koy ñaanal gudd fan. ne gudd fan gu ànd ak wér laay ñaanal Aziz. nee ak teraanga ju yokku. alaaji bekkaay mu baax mi sunu nijaay. nee mosuma dajeeg moom. ku yàlla gërëmul. nee ku yàlla gërëmul. fu yàlla gërëmul. fu yàlla gërëmul. nee fu ma masa taseeg moom. la ma fa yóbbu. la ma fa yóbbu. moo ko fa yóbbu. moo ko fa yóbbu. kii doomi sama soppe. nee kii doomi sama soppe la. Alaaji Mansour mi Alaaji Mansour Mbay mu baax mi. moo ko meññ mais alaaji Mansour Mbaye mu baax mi moo ko meññ ñu bokk turandoo ñu bokk turandoo sëñ Mansour mu niru ko lool ne mu niru ko lool léegi bi mu jëlee kaddu léegi bi mu jëlee kaddu dama ni ko am doom dama ni ko am doom boo dundee téeméer at boo dundee téeméer at boo làqoo boo làqoo bu kenn dee nga bu kenn dee nga borom doom ju baax borom doom ju baax sa yaay niroo sa maam. bu sa yaay niroo sa maam. mi meññi sa baay. mi meññi sa baay. da ngay sa baay. da ngay niru sa wax rek. daa wax rek. sama xol seen. sama xol seen. yal na yàlla guddal sa fan. yal na yàlla guddal sa fan Mansour. nit ku yiw nga. mais Mansour nit ku yiw nga. ku bëgg Aziz. nga. ku ko jàppale nga. jàppale Aziz nga. ndax yow de. yow de. li sa baayam teewoon. li sa boo ñëwee si Aziz Aziz. boo ñëwee si Aziz tey. am fi ñeenti wax. am fi ñeenti wax. mooy sa digganteeg Aziz. sa xam nga ni sa diggante Aziz. du lu tuuti de. sa kër baay nga fees del. nit ñi yiw ñëpp nga. nit ñi yiw ñëpp nga sa kër baay. parce que li sa baay toll ci daal li sa baay toll ci dëkk bi. boo yendoo fii. kon mën naa ne daa dóor. mën di ko na ko Aziz Ndiaye pour nga wax leen rek waaw saa démb ba tey maa ngi gis ngeen koy commentaire al ay commentaire yoo xamante ne fukki nag jënd na ko dolli ko si na ko Aziz Ndiaye dama dama dane woon bu ma ko wax waaye tey dama ko wax sax moom fa loolu la def yéen kenn ñaan ko yàlla vraiment <laughs> ah, ah waaw après nag joxe ngeen ko ticket yi des na. ticket yi des na léegi ñi ñi 1200 yëpp dañuy am euh, yàpp. ñëpp lay am yàpp. yàpp ak lan. yàpp ak ceeb ndawal. yàpp ak ceeb ndawal ak ceeb ah, ah, li li li des yëpp lii ñii ñi des ñëpp jox nañ leen ticket ba pare lii ay suus la. suus yi. dagg ah. nañ Bye. Miss Ndiaye première dame soxna Fa Aziz Ndiaye préparation gàmmu bi ku ne xam na ne suba la fii ci kër Baye Ndiaye mu Abdou Aziz Alé Ndiaye ah, ak magam bi ki nga xamante ne moom moo di Aziz Ndiaye soxna Aziz Ndiaye mu ngi noonu di Miss Ndiaye moom mooy première dame moo wàcc noonu di xool travaux yi installation yi nga xamante ne war nañ ko berndeel gan moom lay wàcc di xool noonu noonu di wax ak mbokku Baye. ay rakam na socc topp mënuñoo lim ñëpp. ndax famille bi ay jullit lañu te ay polygame lañu dëgg la wala dëgg mais mën naa wax ni kii moom moo mën a wane yoon wallaay ndeysaan ndax moo lañ fekk la jiitu ci néeg bu lëndëm rek moo la wax fi ngay toog dëgg la gàmm nag bu jotee di nga fi gis di nga fi gis leneen ak leneen ndax gàmm moom mën naa wax ni rek direct la rek de da say bokk dëgg la wala dëgg mais daal ñu ngi koy sant ko gërëm waaw waaw mais balaa moom dañu sant waa kër gi ba pare ñoom Aziz Baye Ndiaye Aziz Ndiaye Massata ñëpp ñu ngi leen nuyu waa kër gi ñoom jaagal ñëpp maire Fodé Diop maire Khadilo li fi am nii wax dëgg yàlla lii la ñu xamee waa kër gi man El Hadj yi nekkatu fi yàlla na ko yàlla yërëm mais famille bi dajaloo nañu comme ni ñu koy defee at bu nekk mais Miss Ndiaye Miss waaw Miss Ndiaye Miss waaw kenn du moom ku baax waaw sama xarit la waaw ah, te nit ku baax la waaw ndax lu bari loo xam ne nii am na fi première dame Miss yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko jàmm